الحسبان راجع وكرر ما حفظت بلا ملل واكتبه مشروحا ببعض معاني راجع مع الأصحاب في وقت اللقاء والنصح للأخوات والإخوة jërëjëf jëf si ànd beeg Sud FM seen rajo mi nu jënd ba teg ñaar fukki simili Oustaz Mbacké nag tey du ñu am benn dëj mhm. mooy sunu xarit bu ñu nekkandoon fële ci rajo Dunya ñu koy wax euh, Ousseynou Cissé Ousseynou Cissé menn. menn waaw. Mhm. yàlla def dafa wàññi ko tey ci suba. ah bon. ba julee nañ ko ginnaaw bi ñu julee tubaar ba noppi. ndeysaan. ba denc ko yal na ko yàlla yërëm. amiin yaa rabbal aalamiin ñoo bokkoon nekk rajo Dunia. amiin amiin. ay jamonoy 97 98 jëm si 99. dëgg la bi rajo Dunia di ñëw Jurbel moo fa njëkk a nekk chef de station. waaw kay mu ngi noonu. Mhm. yal na ko yàlla yërëm. amiin dégg naa tawat sanal tawat ji xaw a yàgg. Mhm. Euh, tabaarakallaahu tey lañ ko doon waajal fële ca Grand Yoff ci àdduna yóbbu ko denc ko macha mm-hmm. allah yal na ko yàlla yërëm amiin yaa rabbal alamin jërëjëf kon nag ginnaaw bu baax jërëjëf wallaay ndeysaan sunu xarit la woon lool mm-hmm. sunu xarit la woon lool mm-hmm. xaritu xam naa soxna amitam moom la woon lool waaw ndeysaan waaw ñu ngi ko koy tàgge moom itam di ko ko jaale Ah, kon léegi li ci tege mooy. wàllu auditeurs yi lay doon oustaz ñi ne ci biir réew mi ñi nekk bitim réew ñoom ñëpp mën nañoo woote ginnaaw minuit bi mu jotee ba teg ñaar fukki simili. ñi nekk ci bitim réew ñooy def nan. ñooy woote ci 33 841 22 33. ñi nekk ci biir réew mi. ñooy woote ci 88 628 98 98. ويحاني وخذ السواك مع القرنفل في فمك متنظفا لحلاوة القرآن ودع القبائح والرذائل والمراء الورى لا تغد بالأفعال كالصبيان ودع القراءة في مكان سيء كمكان waaw waaw foofu bokk jàng alxuraan mukk xaj mbàkk yi nañ la bëgg a bokk waaw koy jërëjëf asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah bismillah oustaz ñu ngi leen di siyaare ba alhamdulilah oustaz Alioune Sall na ngeen def ñu ngi sant sunu borom bu baax masha allah di rafetlu waxtaan wekk taxawaay bu am solo bi ci réew mi yëpp oustaz. Mhm. ñu ngi koy rafetlu di la ñaanal suñu borom guddal fafan te wéral sa yaram. amiin te bëri saykan ci réew mi daal ci penku beeg sowu beeg gànnaar beeg saalum. bi naa bu ñu amoon ñeenti oustaz Alioune Sall yu ñu féete yooyu rek. Mm. xam naa jàmm rek am ci réew. walaay ndeysaan li ngay wax dëppoo naag lu Sénégalais yi bëgg a dégg te dëppoo naag dëgg. Mm-hmm. yàlla yàlla dëggalal taxawaay bi daal. amiin ginnaaw daal xam naa benn laaj bu may laaj oustaz Mbacke daal xam naa xaw ma sañ naa ko mu ak accès média bi may dégg daal oustaz junj ko keroog waxaat ko tey laa bëgg a xam ba xam luy am ci télé la wala ci ban rajo lay am. d'accord. comme ni ko gars yi wax daal comme ñun yéen la ñu wër daal bëgg nañ jotaay bu ngeen di def ñu koy xam yëpp. <laughs> d'accord. da ngay jégalu bu baax. jërëjëf. Mm-hmm. ñu ngi koy jaajëfal baax tey rafet lu duggam bu am solo boobu. mbokk mi mu ngi tudd Saliou ma nga fële ci géej waaye imaam di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf di leen jot li nuyoo imaam Assane Cissé Seck bu Kaolack. macha allah mi ngi ànd yow jotaay bi. maam Assane ñu ngi lay fay nuyoo tabarakallah te di la ndokkeel. am na solo mbokk mi nee na Oustaz Access Média la ba wax ko <laughs> mooy lan. waaw Access Média benn jataay la. buy am ci RTS 1. Serigne Mbacké Sylla mi moo koy omat. Hmm. ànd ko ay gaay hmm. taabal ji dana ma juróom-benn nit. Hmm. ak moom muy juróom-ñaar. Hmm. moom moo koy doxal. Hmm. léegi nag heure yi xam naa. Euh, sëñ Mbacke. waaw altine ba àjjuma lay doon. altine ba àjjuma lay doon. 17h30 ah, ba 19h. mu ngoog ñu koy tegaat ci waxtu wi. altine dana am talaata dana am. àllarba dina am àllarba dina am. am alxames dina am. àjjuma dina am àjjuma dina am. samedi ak dimanche am ci ay bis. ci na ci ay ci ay tabarkàlla. yàlla na yàlla sàmm la ci sàmm la kon nag mbokk mi nga déggee ko noonu RTS 1 lay am bis yooyu lay am 17h30 lay am mhm. wa shukran ci laaj na mbaam salaam jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk moomu mi nu jot ba te ñaar fukki simili ñett ñu xaar keneen فقط في كل يوم طيب الأركان مجموعها خمسون مع مئة إذن في كل شهر يا أولي الحسبان راجع وكرر ما حفظت بلا ملل واكتبه مشروحا ببعض معاني راجع waaw kida bëgg bokk ne ko ñu dalal ko assalaamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah bismillah Mbàkke si la waaw Pape Sarr Baye Fall. Pape Sarr na nga def. ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay. di leen ziar bu baax a baax. jërëjëf. di la ñaan bis ñu jublu yàlla na si yàlla àggal jàmm ñu wees ko si jàmm. amiin amiin. yàlla na ko yàlla jaarale fa mu ko jaar jaarale wala mu jaarale ko fu ko raw. amiin. yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko defal. amiin yaa rabbal alamin. ñu ngi def yooyu émission yi rek am sa accès média. dégg mm-hmm. nañ si yàlla yàlla taxawu la. ci suurat tawba suurat tawba waaw wassaabiquuna al awwaluuna min al muhaajirina wal ansaar mm-hmm. walladina tabaxuunahum bi ixsaani radiallahu anhum wa radu anhum mm-hmm. wa adda lahum jannaatun tajri min taxtiha al anhaar xaalidina mm-hmm. fiha abada dalika al fawzu al azim loolu laa bëgg Oustaz Yuunus Tey jërëjëf jërë ngeen jëf mu ngi koy jaajëfal bu baax tey rafet lu dugam bu am solo boobu jaajëfal mbokk mi di Pathé Diop ma nga fële ca Mexe village di ànd ak ñun jotaay bi suñ Pape Sarr ci alxuraan la dem ak ñun sóoratu Tawba aaya cent tolloog fa borom bi di waxee wassaabiquuna al awaluuna min al muhaajirina wal ansaari walladina tabacuuhum bi ixsaani radiallahu anhum wa radu anhu tabarakallah wa ahadda lahum jannatin tajri tahtaal anhaaru xaalidina fiha abada dalika al fawzu al azim dëgg la jërëjëf euh, saar woowu di taw ba sëñ Mbàkke mhm. defe naa ñun ñëpp xam nañ ne mhm. moom rek moo amul bisimilahi rahmaani rahim waaw borom di wax ay gaay mhm. gaayan asa wassaabiquuna al awwaluun ñi njëkk a dugg ci diini ji al awwaluuna nga xam ne moom ñoom liste bi ñooy tedd liste ñan lañ minal muhaajirina wal ansaar ansaar mu muhaajiruna ñoo ña jóge woon màkk ñëw madina ànd ak yonent bi lansaar yi mooy ñañ fa fekk wala si na tabaxum bi istaanin mooy troisième groupe bi moom ngay dégg fa la ñu naan wala si na jaaw mi mbaax dihim ndeysaan kon soo ko dee seetlu ñetti group la yàlla yi lim toujours ci gaa yi wala si tabaxum bi istaanin yëmutoon nag mbaax ci ittabaxuhum daf caa teg bi ihsaan bi ihsaan dañ leen a topp te rafetal topp ga di wax ca ñoom lu rafet di wax ci ñoom lu baax. loolu tam saa boo ko dégg ci alxuraan mbàkke hmm. xamal ne yow ci sa bopp fi nga toog nii. Hmm. am na ñu la jiitu. Hmm. am ñu leen jiitu nga ñëw. asaabiqoon al awaloon. bu dee ci sam réew am na la jiitu. li ngay def nii am na ñu la ci jiitu. li may def nii am ñu jiitu. kon man su ma ñëwee. damaa war a topp topp leen bi ihsaanin. topp leen bi ihsaanin mooy liñ jot a def. ma jéem koo téye mhm. su ma ci amee lu ma yokk ma yokk mhm. bu ma amee lu ma cay lu ma cay wan nit ba mu gis ko mhm. mu gën koo yokk njàmbaar mu def ko ñoo ñëpp nag radiallahu anhum wa radu anhu ndeysaan te yàlla bég na ci ñoom ah ñoom it bég nañ wa adda lahum jannatin na leen ay aljanna tajri taxta al anhaaru xaalidina fiha abadan ca ñuy sax ba faw daalika dugg aljanna nag sax ba faw mhm. alfawzul azim mooy victoire bu bi est-ce que mooy victoire bu rëy yàlla nañu ko yàlla defal amin wa shukran ci laaju mbokk moom bu am solo bi jërëjëf Pape bay Baye Fall asalaamaaleykum oustaz waaw oustaz sa mbokk bro naka waa Thiès samay ñaanal ñu am jàmm ñu ñëpp Sénégal am jàmm lépp lu wër Sénégal am jàmm amin yàlla nañ ko am yàlla may ñu jàmm. amiin yàlla taxaw ñu dafa ñu cet musiba ak balaa. amiin te yàlla may ñu mujj bu rafet nag. Mhm, amiin waa di ñaan Sénégal am jàmm nag. amiin yàlla yàlla nañ ko yàlla defal yàlla nañ ko am. amiin léegi nag dañ ma yóbbante ci oustaz. waaw. day faal footballeur. Hmm. nee na dafa dayeeg oustaz oustaz na ko meeg. mbay gëj nga ma woo. mu yeewu suba teel woo ma téléphone dama laaj <laughs> numéro oustaz ma ne ko franchement aw ma ko. Mhm. waaw noo xam oustaz daal Baye Fall sopp na ko xam naa ne xamante nañu. waa mi ngi wër numéro am te amu ko. wallaahi ndeysaan dina ko am incha allah. yàlla ñu yàlla defal jàmm ah. dina ko am léegi. Mhm. jërëjëf Boro ñu ngi koy nuyu di nuy waa Thiès yëpp. di nuyu mbokk mi di madame Diop ma nga fële ca Kër Massar nee na nelaw gudd di ànd ak ñun jotaay bi. ñu ngi koy fay bu baax a baax nee na Mbaye Fall mii di footballeur. Mhm. <laughs> mi ngi wër sa numéro. <laughs> ndax dëgg waaw waaw Mbaye Fall de xam euh, jaraaf. Mhm. xam nga Mbaye Fall. Mhm. waaw footballeur la woon bu ko mën. tabaarkalaaw jamono yi ñuy entraîné fële ca Medina. daan nañ fa ta dem ca Touche di leen seetaan. bu ñu raxasoo ba ñibbi nun tam nu ñibbi mm-hmm. noonu lañ daan ñëwee fii tam ci Sacré kër di seetaan si ñoom Séga Sakho ak euh, Baba Touré ñoom ndeysaan mm-hmm. donc suñu xarit la gi tasi nanu mu ne ma mu dey ma ne ma mbay Fall bu jaraafa ngi nii mm-hmm. ma daal di koy lëng ndeysaan <laughs> nu waxtaan danañ fexe mu am suñu numéro incha allah incha allah am na kenn ku nekk nii suñ Mbàkke waaw kay ñu dalal ko asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah teewlu émission bi. jërëjëf jërëjëf. Ismaïla Sarr maa ngi dëkk si Wokam Cité Avion. Ismaïla naka waa Cité Avion. waaw ñu sant rek léegi moom sant yàlla bu baax fi nekk nii. waaw ndeysaan. Uh-huh. dafa am lu ma bëggoon leerlu ci daara ji. Mm-hmm. Eh, parce que damay dégg daal ñuy wax ne ñu ne julli daal war da fekk eh, xam ne yéefar la mu ne ko asalaamaaleykum rahmatullah. Mm-hmm. léegi nag man dama doon leerlu ci daara ji man eh, kan mooy yéefar daal laa bëgg a xam daal leerlu daal ci daara d' accord waaw loolu daal laa amoon lu may laaj quoi. Mhm. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Ismaïla Sarr cité avion. kii mi ngi mbay Soda Mbaye mu ngi di ànd ak ñun jotaay bi. Hmm, madame Kébé ñu ngi lay nuyu. <laughs> <laughs> di nuyu ak xale yi yëpp. lay ndeysaan. Ismaïla nee na dafa dégg ñu ne eh, ab yéefar baat boobu la jëfandikoo kenn waru koo fekk mu toog nga ne ko asalaamaaleykum mu ne kan mooy ab yéefar. ab yéefar de moom la alquran wax ci suuratul bayna. Mhm. lam yakuni lazina kafaru mhm. min xam nga kufru mhm. mooy koo xam ne kii dangaa nanguwul ne mhm. yàllaay yàlla moo yónni yónent yëpp mhm. ku dee da nga dekki macha allah ku weddi loolu nag ñu tudd ab yëfër waaw boo nangoo nag ne yàlla mooy yàlla moo yónni yónent yëpp ku dee da nga dekki léegi génn nga ci kéefër yaa ngi ci imaan waaw moo tax mooy lam yakun lazina kafaru min ahlil kitaabi wal musrikiina wal musrikiina mm-hmm. ahlul kitaab mooy al yahudu wa nasaara mm-hmm. musrikoon yi mooy ñi nga xam ne peut euh, mm-hmm. gëm nañu waaye dañuy <laughs> dañ boole yeneen yan lañ ca boole men mbokk ak ñu solo jërëjëf ñu dalal ko Seyda Mariama Niass Kaolack jërëjëf asalaamaaleykum waaleykum salaam bisimilah bisimilah sëñ Mbacke Sylla jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar waaw neen def jàmm rek xawal a sori tuuti ah man woote Cap Skirring Cap Skirring naka waa Cap Skirring Ah, sant yàlla ñuy sori. bisimilah bisimilah. waaw ah, dama woon ñaar laaj ñu mun bool rek. waaw. maanaam ci bésu àjjuma boo demee nga fekk imaam bi muy kutubu da a julli rek. d' ñaari rakk yi. d' hmm. mmh. laaj bi tam. Mmh. doon laaj kii mooy maanaam am na yeneen yoo xam ne boo demee léegi day fees fu muy nekk noonu yow mooy maanaam boo nekkee ci biti. Mmh. nga taxaw yow rek la ñuy déglu. waaw mooy maanaam jumaa ji bu feesee ni nga nekk ci bon nga nekk ci biti nga taxaw ci kanam imaam bi noonu est-ce que loolu baax na. d'accord. ñaar laaj yooyu laa mën am na solo jërëjëf ñu ñu waa Cap Skirring yëpp tey rafet lu duggam boo am solo boobu mu dugg ci jotaay bi. mbokk mi dooro Sylla la tudd ma nga ci France nee na nelawagul mi nga ànd ñu jotaay bi. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax a baax Doro di nuyu waa Paris yëpp aju Pam Ndiogu Sall ga Suède. Mhm. mbokk mi Cap Skirring lay wootee nee na ki ñëw ci jumaa ji fekk imaam muy xutba ndax day julli def taxiyatul masjid wala day toog rek déglu xutba bi. day def taxiyatul masjid te woyofal ko Mm-hmm. day def taxitul masjid te fal ko mm-hmm. ndax alayhi salaam doon na xutba waaja ak si mu téye xutba ba ne ko ndax def nga ñaar rakk mu jide mu ne ko jógal def ko mm-hmm. te tooga door a toog daal di wax mbooloo ma nag ku ci duggati yéen ci jàkk ji balaa toog na def ñaar rakk te fal ko wa shukran jërëjëf oustaz ñu ngi koy jaajëfal te di ko ndokkeel nee na ñaare ci jàkk yi dafa am yooyu day teel a fees lool ba ca kanam ak gannaaw ga yëpp fees nit ki julli taxaw féete kanam imaam ndax loolu euh, baax na am déet. waaw léeg-léeg nga dem ci mas ab de ñu ne la danga boo boo nekk ci kanam imaam su julli baaxut. boo tolloog mu su julli baaxut. Mhm. soo seetloo boo demee Madina Madina Nawara. Mhm. boo ñëwee ci kanam imaam mel ni ku jëm baax ya. Mhm. da nga bind ni fii lay julli gi maanaam pour bañ ko dañ julli ci kanam imaam. waaye bu dee ci mas imaam Malik nag day wax ne bu jàkk ji feesee. foo nekk rek baax na moo xam ci kanam imaam moo xam ci ginnaaw moo xam day jor moo xam càmmoñam boobu nag moo gën a lëng te moo gën a euh, woyof Mm-hmm. wa shukran ci laaj bi moom sala bi jërëjëf oustaz ñu ngi koy jaajëfal bu baax te di ko ndokkeel di xaar keneen ci ginnaawam bu ñëwee ñu dalal ko léegi tey mu ñëw xam naa ne ñu ne ko kaay ani wa a'azzani bi tilawati alqur'ani thumma as-salatu ala an-nabiy al-mustafa khayr al-barr Ibrahima Diallo xaar yàlla nee na nañ ko mos a dikkal ci lii góor gi di wax subul an-najati wa raghiban hifz al-qur'an nee na jar na sax ñu beral ko benn waxtaanu fajar insha allah ni asuqu muwaddihan laka khutatan tabdu waaye kii daa bëgg a bokk xaj Mbàkke génne mu dalal ko rek asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi ziar. jërëjëf soxna si yal na yàlla nangu siyaar. taalibe sëñ Saaliw lañ koy wax. bisimilah taalibe sëñ Saaliw. dama doon laajte oustaz si zakaat ñi nga xam ne dañuy dañuy leble. Hmm. di fay ay weer nooy joxe ak génne koo xam ne. day leble nii muy jaay. Hmm. buy génne azaka nu mu koy génne. d' accord. parce que dafa am ku ma ne woon booy génne azaka dangay ma am at boo xam ne dama calculer bor yi at bi dellusiwaat na te bor yooyu nekk foofu ma xam xaw ma ma koy defee. d'accord. Uh-huh. jërëjëf maa ngi rafetlu ma mën a lu jot yomb. <laughs> jazakumullah xayran. amiin mhm. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax taalibi sëñ Saliou la tudde boppam mbokk mi ngi tudde Njinde Guèye mu nga fële ci Tivaouane Pël di ànd ak ñun jotaay ñu ngi koy nuyu baax a baax di nuyu waa euh, Tivaouane Pël yëpp te ànd ak tey rafetlu ànd ak jotaay bi mhm. mbokk mi nee na koo xam ne day euh, leble ñu di ko fay xëy na noonu lay liggéeyee. Mhm. buy génnee azaka nan la koy def. ba accès ci bor yi dafa am bor boo xam ne suñu mbàkkee. Mhm. wóor na la daañ la fay. Mhm. ci wóor gi it daf laa wóor ni fii ak mois daañ la fay. la ngay calculer ci bor yi. waaye li la wóorut ak la wóor ni fii ak kenn du la ci fay loolu doo ko calculer waale. waaw wallahu taala alamu shukran jërëjëf oustaz ñu ngi koy jaajëfal bu baax nee na daaw da doon génnee asaka sax ndeysaan calculaale bor yi waaye bor yam calculoon ren ji buy calculaati bor ya ba tey fayaguñ waaw mu mu ko mu daal bor yi la wóor ni fii ak un mois daañ la ko fay hmm. booy calcul boole ko ca ndeysaan wa shukran jërëjëf asalaamaaleykum allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah bismillah ñoo ngi ziar ci Mbàkke waaw Sidi Diop Daara Sidi Sidi Diop Thiaroy. Sidi Diop bisimilah Diop. ñoom ziar bu baax a ñaari laaj yu ñaari laaj waaw. benn wulaayatal xaw ma laay saa jëli si mu gis ak beneen mu di jënd sans date. waaw beneen bi ci alquran la. ci xojila en foofu am bi la xol sama xarit da nga ñu waaw ñaari laaj yooyu la woon di leen ñaan suñu yërëm la leen taxaw bu baax a wax. Mm, jërëjëf amiin tubaarkàlla. jërëjëf ñu ngi koy jaajëful baax sëñ Sidi Diop moomu tey rafet lu dugab boobu mbokk mi Bassirou Sogo la tudd mu ngi fële ca ministre bi yor wàllu finance di ànd ak ñun jotaay bi mm, wala ministère bi yor wàllu finance mm-hmm, masha allah nee na ulaayika al xawmu laa yasqa jalisuhumu mm-hmm. is yaksibuuna al muridina saadaati la bëgg nga tekkil ko tabaarkàlla sëñ Mbàkke loolu a ngi nekk ci genn xasida gu ñu tudde xuqal bu kaaw xasida gu nekk taaiya maanaam ci taalay jeexe mu cay wax aw nit ñoo xam ne dañoo nekk nit tasawuf yar seen biir ba mu niroog seen biti ñu yar seen biti ba biir nga xam ne li ñuy wax ci kaw moog li ñuy wax ci suuf benn la ñooñu lañ tuddee ahlu tasawuf seen waxi kaw ak seen waxi suuf benn la. wax ci nit wax ci seen bopp moo leen ko gënal. dëgg la waaw. Mhm. defar seeni sikk moo leen gënal defar sikk jàmbur. Mhm. man nag ulaayikal xawmu mhm. mbooloo moomu may wax. jële yasqa mu kenn du toog ak ñoom di texee di. mbaa suuf souffrir mbaa ngi sonn. lu tax is yaksibunal muridina saadaati. macha allah waaw. ndax ñoom ku toog ak ñoom. am na fulaayu àddina ak na fulaayu àllaaxira waaw. tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu mhm. bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati macha allah wa shukran ci laajam baam solo boobu jërëjëf teg na ci aayab alquran bu nekk ci surat al araf aaya cent wala euh, aaya deux cent mhm. Mhm. aaya cent quatre-vingt-dix-neuf euh, moo tolloog fa borom bi di waxee naan xusil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jaahil wallaay ndeysaan euh, <laughs> ibnu abbas nee na hmm. laaj ji ci wàllu jikko mooy laaj ji ko gën a neex ci alxuraan ci hmm? xusil af mm-hmm. xusil af mm-hmm. mooy féetewal jëllale ndeysaan ndeysaan loo dégg jëllaleel mm-hmm. lu ñu la def jëllaleel wa amur bil urf bil urf del digle njëkk ndeysaan digle njëkk toog taxal ci yoon woowu rek digleel njëkk rek ñaar de waa di andil jaahilin ñi la réeree du mooyu leen ndax di leen wan ne maay diw da yàq sa programme ndeysaan <laughs> kenn musul gis loolu macha allah wallahi ah wallahi sall <laughs> sa subhaanahu wa taala wax ji rafet na ah est-ce que munu fee weesu wallaay am mbokk ngi nii te neex ci jikko wallaay te neex ci jikko wallaay ndeysaan jërëjëf asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. El Hadj Mbacke ñu ngi leen di ziare. jërëjëf jërëjëf. yéen ci bu baax. jàmm rek kan la góoru. góoru caba. góoru caba na nga def. <laughs> sant bu yore wér. macha ci jàmm bu baax. jàmm rek ana caba. caba ngi si mu ngi ci jàmm bu baax mm, baax. jàmm rek mi xam naa li muy du bari xanaa. déedéet. <laughs> waaw li muy du bari. moom wax dëgg yàlla ndeysaan. góoru caba jàmbaar la jàmbaar la. ndeysaan. <laughs> Euh, dafa am lu ma laaj bu ma xaw a jaaxal tuuti. waaw. Euh, ndax fii ñun dañu àdduna comme nit buy jël misaal. Hmm. naan euh, moom mu ci fen. ka hmm. dëddu mu ci dëgg. Hmm. wax jooju daal daf maa xaw a yéem lool lool lool waaw mu bëggoon oustaz ñëwal ma jërëjëf tubaarkala jërëjëf góoru caba ñu ngi koy jaajëfal kii mu ngi tudd alaaji Ousmane Daabo mu ngi fële ca asalem ne la ne la wa gudd jërëjëf Seyda Basin di soxna si nga woon di soxna sëñ Omar Seck waaw yëmbal ndeysaan itam wala ca mi ngi ànd yow jotaay bi dëgg la nee ko ñu ngi koy nuyu baax a baax a baax di nuyu sëriñ ba góoru caba nee ñaare ci wàllu misaal nit ñi bu ñuy wax ak koo xam dafa faatu danaan moom ma ngi ca dëgg ñun ñu nekkul ci lu dul dëgg muy laaj loolu lan lañ ciy jublu waa li ñu jublu mooy àdduna si kër la gu nit mën a fene mm-hmm. àllaaxira kenn munta fen mm-hmm. loolu rek la mm-hmm. àllaaxira kenn munta fen mm-hmm. fii nag nit mën na fee fen loolu lañ ci jublu ci ma nga ci dëgg ñooñu ci kërug fen loolu rek lay tekki wa sukkuraan tubarkalla jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal góoru ca ba min wi jot na ba teg ñeent fukki simili tabarakallahu kon ñu xaaraat keneen rek xam naa léegi tey mu ñëw ci yoon wi ñu ànd ak moom ka wasawis ash-shaytaani wad'i dhunuba kabiraha wa saghiraha fadh-dhanbu yutfi'u jadwata al-adhani wa 'alayka bish-shaykh al-mu'ayyad bis-sanad al-hafiz ath-thiqati al-karim mbokk mi am na ñaari xasidaam sëñ Mbàkke xam naa jomb danañ ko monte indil la ko yu ama am solo benn bi ci aj Màkka la ko def tabaarakallaahu benn mu def ko ci takk ay soxna yu ëpp benn sëñ Mbàkke nii mu def nii la ko waaye incha allah jomb danaa leen ko monteel ba indi leen ko ay bis gi di ñëw 88 628 98 98 midi moo jël ba teg ñeent fukki simili ak ñaar majmuuha hiya ashratun maa xamsatin fi kulli yawmin baasimin kii si di sekk la tudd mi ngi ci OFNAC nee na mi ngi ànd ak ñun jotaay bi ya saahibi tisuuna satran wuddihat mbay si ci Ali Imran la nekk tabaarakallahu Paate Jóob mi ngi ne waaye mi moom ca soor dàgg la dëkk wala soor jaañ ndar in chita faxfad xamsa ayatin faqat fi kulli yawmin tayyib am na ku ñëw xaj Bàkke ne ko waaw kay ñu dalal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah allo sëñ bi suufee euh, nga dindi ko allo ñu jéggalu ko xam naa mu jubbanti ñu xaar ko mu ñëw ñu dalal ko waxtaan. keneen a nii naa ko. ñu dalal ko asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. yaa Oustaz ñu ngi siyaar. jërëjëf jërëjëf. Mamadou Fall ah, def. waaw ah, ñu ngi fi rek. naka waa Pikine. ñu ngi fi bisimilah bisimilah. Euh, mm, mm, mm. ngi lay dégg. Euh, ñu ngi lay ñaar baax gudd fan ak wér. amiin amiin moom. ay ndaw lañ te waaye yàlla def na dañ lay déglu saa su ne. Mhm. waaw. Mhm. man nag leen rek laa bëggoon bu fekkee dina mën a nekk. Mhm. muy numéro waaw bu fekkee dina mën a nekk. d' accord bu émission bi jeexee nga woote ci cinq 825 18 30 ñu jox la ko. waaw amoon naa benn laaj moo ko bëggoon laaj. muy Oustaz. man damay dégg ñu naan mag ñu baax ji. yàlla na yàlla yokk seen leer. maanaam ndax ñoom ñoom ñi am génn nañ àdduna ñun mun ñu leen ñaanal ñaanal na daal comme yàlla na nañu yàlla yërëm xaar leen àjjana loolu bu mu nekk wala. Ah, ok. Mhm. loolu laa woon laaj rek. d'accord. <laughs> jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax tey rafet lu duggam bu am solo boobu jaajëfal mbokk mi di Xalifa Diop ma ngi ca New York di ànd ak ñun jotaay bi jërëjëf oustaz mbokk mi ginnaaw bi mu laajee sa numéro ma wax ko fi muy jaar nee na day laaj itam mag ñi nga xamante ne ñoo jiitu ji te ñuy njort ci ñoom ak mbaax te ñu baaxoon lool it nee na ñaare bu ñu leen di ñaanal dañ ñaan yal na yàlla yokk seeni leer mu lu tax mënuñ leen di ñaanal aljana loolu di suñuy terme la nun mhm. nun nun ñii mhm. suñuy terme la waaye ñoom loolu du seeni term mhm. termum ñaan mooy radiallahu anhu yàlla na ko yàlla gërëm wala rahimahullaahu yàlla na ko yàlla yërëm loolu mooy termu ñaan yi nga xam ne moom lañ war a ñaan léegi nag yàlla yàlla yokk leeram ak toas ñu ci barkeem ñoom si suñu yëf yi bopp waaw Mm-hmm. waaye ñoom ñoom daaw ñu ñaan leen noonu ku ku génn àdduna isi du aw yan fox mooy tan fil xubuur tabarkalla ca masali ko jiraan mm-hmm. wa shukran ci laajam bam solo bi jërëjëf ci tontu lu am solo loolu ñu ngi ko ciy jaajëfal kooku yërnu na rek génnaat ñu xaar keneen sëñ Cheikh mbàkke solution ñu ngi lay nuyu <laughs> mbokk mi tamit mu ngi tudd Serigne Mbacke sant Mbacke nekk fële ca tiib ca wetu Mbacke di ànd ñu jotaay ñu koy nuyu baax baax sëñ Mbacke Mbacke mi na ba tey ñeent fukki simili ak ñeent jàpp juróom asalaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa ñu ngi lay fay nuyoo yal na yàlla nangu siyaar naar Ndiaye def ñu sant waa ñu leen di ziar allah Ndiaye Ndiaye jàmm rek Ndiaye jërëjëf mi ngi lay fay moom it. ñëw na ba ca kër ga di sëñ Mbacke. ndeysaan naan ñëpp jërëjëf jërëjëf di ñaan yàlla yàggal taxawaay yëpp di ziar Oustaz Alioune Mbaye tamit. jërëjëf jërëjëf Ndiaye. waaw ci waa rajo bi yëpp daal di leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm ak xéwal. jërëjëf jërëjëf. yéen yokk ba yëg wa sallam. amiin amiin yaa rabbal alamin di ziar soppe rajo Sud FM diaspora yëpp ñu leen di ziar. ndeysaan di yooyu di ko teg yàlla ji. alaaji alaaji Pape Mor Pape ko ci ñoom daal suñu tool daal ñu ngi leen di bëgg a bu baax a baax na yàlla ñaan yëpp euh, di jaar aussi suñu waa ànd defal ñetti di ko teg ci imaam Ibrahima Diagne bu jàlloon na ko ci waa imaam yëpp ak waa daal yëpp daal bu baax bu baax rek saa su ne nii moom baax na ci lool macha allah baax na ci koy jërëjëf koy jërëjëf jërëjëf Naar Ndiaye suñu xarit bële ca bitim réew te ñëw senegal jamono ji mbokk mi ngi tudd madame Badiane Ami gay mu ngi ci usine benn tali di ànd ak ñu jotaay bi ñu ngi koy jaajëfal baax wéy di leen xaar ci jotaay bi yéen waaw oh, suñu mbokk suñu mbokk mu tuddoon Mbay Sow ci tàngal ma yaa ngi koy Mbay Sow gëj naa koo dégg lool nag ah waaw te ñoo xam jar na ko de suñ mbay suñ kon boo ko déggee ñu ngi lay wër waaleykum <laughs> salaam ñu ngi lay wër wër yu métti metti bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Eh, soxna maam Camara Sicap eh, Mbao. waaw ah, kay kamara naka waa Sicap Mbao. ñu ngi sant yàlla bu wér. macha allah Camara. Eh, Sall Mbacke si la. ñu ngi ah. leen di jaar cat mu bees bi. jërëjëf jërëjëf. leen di ndokkeel di leen ñaanal yàlla. ndeysaan. yàlla dolli sutura taxaw leen sàmm leen ci ma Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amin amin fu ñu toll dañu leen di déglu di leen safoo jërëjëf wax dëgg yàlla fu ñu toll ñu ngi déglu émission yi mhm, ndeysaan suba si tamit guddi àjjuma àjjuma ji yëpp wax dëgg yàlla jërëjëf di rafetlu bu baax seen émission yi jàngale bi ngeen def defal yëpp ndeysaan dañu leen doon ndokkee rek jërëjëf jërëjëf jërëjëf sant wee sant wee neexut waaye dugg bi moom am na solo <laughs> jërëjëf Camara moom ay ñaan la indi oustaz ak rafetlu jotaay bi mbokk mi ngi tudd Abou Ka mu nga ca Thiès di ànd ak ñun jotaay bi moom ñu ngi koy jaajëfal baax ka sëñ Abou euh, di bég ci boobu mhm. suñu soxna sel tam soxna ramut lay bàjji waaw moom tam gëj nga koy dégg waaw moom nag euh, dégg naa ko ci semaine bii ba ca topp defe naa incha allah waaw ndeysaan kon ñu xaar keneen Mm-hmm. waaw ñu xaar keneen incha allah waktub mashruxan bi bacdi macaani raajic maca alasxaabi fi waqti alliqaa wannusxi lilaxawaati walixwa minu jël na ba teg ñeent fukki simili ak juróom ñett fi ci Sud FM seen rajo Abdoul Cissé mi ngi ci Liberté 6 di ànd ak ñun jotaay bi walhadayaani waqra bi wirdika fi qiyaamika bidduja naka noonu Serigne Mbacke Fall ci kër Mbaye Fall mi nga ànd ak ñun jotaay bi الصلوات أيضا فاقرأ واشكر لربك واسع السلطان واحفظ فؤادك ما استطعت من الهوى حتى يضيء القلب بالقرآن وعليك بالمتشابهات فإنها عون لحفظ الذكر والتبيان إن التشابه في القرآن كرامة للحافظ المتدبر اليقظان neen daa bëgg bokk xaj Mbàkke ne ko ñu dalal ko ci jotaay bi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam wa rahmatullah bismillah bismillah Oustaz Mbàkke ñu leen di waaw kay yal na yàlla nangu siyaar eh, di leen ndokkeel bu baax a koy siyaar bu baax dama xam ci moom hmm, ah, waaw Euh, xam naa mënu ma ko am na ko xam nga ma bu émission bi jeexee ma woote ci numéro bi 33 euh, bi mais woote naa ni kenn jëlul. kon xam naa dafa guddi rek. waaw xam naa itteewoo naa ko lool nag. parce que itam naa ko itam ni ma ko itteewoo. Hmm. bu dee loo a xool antenne bu émission bi jeexee boo wootee di nga ci mën a waxtaan moom bu dee. lu ci dana ko dégg nii. waaw waaw incha allah loolu moo ma moo ma moo ma doon gënal. bu soobee yàlla di nga am numéro bu émission bi jeexee une heure trente rek la ñuy jeexal une heure trente rek tàmbali la woote ci 33 825 18 30 dinaa la ko jox. incha allah incha allah. jërëjëf. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax tey rafet lu duggam bu am solo. daal sama mbokk mi Serigne Moustapha Sow ma nga ca Thiès moo ko euh, Pape Ba ci Mbour 1 di ànd ak ñun jotaay bi. Mhm. Euh, jërëjëf Oustaz ñu ngi koy jaajëfal bu baax tey rafet lu ànd googu mbokk mi daa bëgg. waaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah ñu lay jaar baax si la alhamdulilah jaar sama oustaz Alioune Sall mhm. El Hadj oustaz Alioune Sall ñu ngi lay ñaanal jàmm oustaz oustaz li yaa bëgg li nga sox nga xam li nga bëgg si xol yàlla na ko yàlla defal Sall damooy rafetlu téléthon bi nga def oustaz Tayib si mhm. sa taalibe sa soppe Socé Diagne Ndiaye ma kontaan trop trop kon su ma mënoon dugg naa dugg direct ndax un million boobu nga def oustaz yàlla na la ko yàlla defal mu nekk cinquante deux milliards yooyu ngay wut. amiin ci barke si naa Muhammad sallallahu barke yu muy jumaa ci barke weeru màgg bi. amiin yàlla mën na ko yàlla ak muy dégg. moo ne ñaan leen ma may leen sant leen ma dolli leen ñaan leen ma may leen sant leen ma dolli. maa ngi koy ñaan ci borom su Oustaz yaa xam li nga bëgg yow Oustaz. Euh, Ablaye kii Mbaye Ablaye Mbaye Aliou Mbaye. Mhm. Oustaz Mbacke si la Oustaz yëpp. Euh, Iran Ndaw tabaarakallaa mu man je suis fier vraiment d'être musulman dama gisee suñu kenn ngeen ngeen taxawu oustaz euh, vraiment dama kontaan. ndeysaan te yaakaar naa ni li ci def bu oustaz bu man kii war na mot de ah yaakaar naa. waaw mi ngi sori. de yàlla na ko yàlla moti. amiin te yàlla dégg nañu cent millions yooyu ñu wax. yàlla na ko yàlla moti ba ay oustaz tey soo mu mën a dem këram tom ni ko oustaz ñu daan doxee doom passé sam xarit. amiin oustaz xam naa ne jour conférence bu yàlla dimbalee fële. Euh, incha allah kasoor du ñàkk xëy na am ñeneen ñu ñëw joxe. waaw man nag yàlla def ne man su ma def ma publicité ma leneen bari laa jo la la mujjee mujjee joxe. mais te yàlla suñu borom moom moom mi nga xam ne moo ko fa dugal ñaan yàlla génne ko fa. donc saa man damay leen ñaanal gudd fan wér ak wér la chaque mm-hmm. jeudi yàlla may leen kattan ngeen mën dox seen émission yàlla may leen kattan ñu leen di déglu. ndax ñun suñu ferte ngeen. sa sama xol la tooy quoi maa ngi leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di leen souhaiter une bonne continuation asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw incha allah dina mat sëñ Mbàkke ndax euh, ñëpp nga cay def. Mhm. am na daa ñëw këram la joxe. Mhm. waaw teereem. wallaay teereem baa ngi def leen ko xaaj te def ko ci. Mhm. mbokk mi Modou mbenn la tudd ma nga fële ci New York di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax tey rafetlu ànd ji di nuyu waa New York yëpp. minu jot na ba tey juróom fukki si simili ak benn ñu xaar leen. ñu xaar leen kenn ngi nii moom tam nee na. ñu jël ko asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah bisimilah. Oustaz euh, Mbacke ñu jërëjëf ñu ngi lay fay. ñu ngi ziar euh, Oustaz Alioune Sall bu baax di leen ñaanal sama borom nangul ne. amiin amiin yaa rabbal alamin yàlla nañu boole nangul amiin. defal leen sama borom defal dal yëpp yàlla bu ñu nangul. amiin yaa rabbal alamin amiin. baax a baax baaba tey Tiwaawan. baaba naka waa Tiwaawan si. ñu bu baax kay. jàmm rek kay sëy. alhamdulilah. fam benn laaj bu ñu doon laaj. waaw. Ah, man imaam damay gis léeg-léeg dafay am nit ñoo xam ne bu ñu toogee ni si du ma ko gis sax jàkka ji ñu toog ni si ker bi mu féex nii. Mhm. ma ne ko ma ne ma maa dem si jàkka ji mu ne ah ma de bu dee maat kenn dinaa dem si jàkka ji bu dee am naa ko maa mais bu dee. bu dee man rek la moom du ma jugee ci ker bi parce que. moo mhm. gën a féex si jàkka ji man rek maa ma doon ci laaj ba xam loolu ci islam wax. Mhm. Sall. waaw. Mhm. waaw beneen bi mooy tam damay gis léeg-léeg nit ñi bu ñu tudd seen doom ñu def turu biir maanaam dañu koy tudd daal dañu biral tur yi ñu dañuy mhm. bëtal yooyu ma doon laaj ba lislaam ci lislaam wax. lettre mhm. bi tam mooy dama doon laaj ba xam jeexalu saar bi afasituma an namaa xalaq mu abat wa annakum ilayna turja'un fa ta'ala malikul ko xaq laa ilaha illa huwa rabbul aziz karim ji lu ma xale yeneen laa burhaana lahu bihi kenn may saa boobu mu jeex na ci sama borom wax wasalaamu aleykum wa rahmatullah d'accord waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk mi tu tudd Aminata Diallo ma nga ca Thiès nelaw gut mi nga am jotaay bi. jërëjëf soxna Ndeye kamara ca Amérique moom itam mi ngi ànd ak yow jotaay bi. est-ce que maa ngi koy béggee tubarkàlla. nee na dana yónnee participation assurance. noo ngi koy xaar. incha allah di ci bëgg nag. <laughs> te ñaan ñu bari mel ni yow. amin <laughs> jërëjëf mbokk mi neen dafa dégg ñaare eh, ñi nga xamante ne dañu am gone eh, am tudd. di ko bëtal maanaam bis bañ koo waroon tudd dellu si tudduñ ko yóbbuwaat ko ba ci beneen muy laaj loolu nu ko lislaam gis loolu de moom daanaka am kii la su fekkee daal amoo amum xar mm-hmm. mën ngaa tudd te di muti am xar mm-hmm. wutal ko turu biir tamit tudd ko ba noppi ba ñu biral turu ba it loolu mm-hmm. sunu mbiri boppa da tudd doom wax ñëpp ne leen diw laa la tudd mhm. ñëpp dégg ko mhm. nga ren dem xar mhm. boo amul tam xar na nga wuti xar ba bis bi del si soo amul nga wuti waat ba bis bi si soo amul li fekk ngay am rek yonente bi nee na alxulaamu dañ koo dañ dañ koo dañ koo tayle ci xar mañ koy rendil waaw barkalla wa shukran ci laajëm maam sala jërëjëf dem na ca suratul muminuun it aaya cent quinze afa xasibtum annama xalaqnaakum abasa wa annakum ilayna la turjaxun ndeysaan sunu borom nee na da ngeen defee ne fo moo tax ma bind leen bind leen rekk ngeen ne ci àdduna juddu màgg màggat hmm. faatu ñu rob leen ngeen dem rek comme ça hmm. déedéet hmm. yàlla mu ne weesu naa loolu weesu naa loolu binduma leen ngir fo kon na ngeen xam ne weesu naa loolu masha Allah mooy sukkuraan ci laaj bu am solo bi jërëjëf ci tontu lu am solo loolu 88 628 98 98 33 841 22 33 إن التشابه في القرآن كرامة للحافظ المتدبر اليقظان وإذا ختمت فراجعا في سبعة متأسيا بنبيك العدنان وابرأ من الشرك الخفي وشره واطهر من الأحقاد والأضغان لا تنتظر أبدا ثناء من أحد أو مأربا إذ كل شيء waaw jàng alxuraan bëgg ku la ca tagg jëru ko mbokk daa bëgg bokk nee na kullu sayin faani asalaamaaleykum bisimilah allo allo kooku génn na oustaz ñu ngi koy jaajëfal bu baax tey rafetlu waa dugg bi di xaar keneen. mbokk mi madam maam daam loola tudd ma nga fële ci unité douze di ànd ak ñun jotaay bi. ndeysaan euh, am na solo oustaz ñu jaajëfal ko asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu. bisimilah bisimilah. Euh, sëñ Mbacke ñu ngi leen di ziar. jërëjëf. di euh, ci at bu bees nekk. jërëjëf. man ab taalibe la yàgg naa leen dég eh, déglu mhm. te la yàlla dogal ma woo leen ndeysaan benn at eh, mus naa dajak jëm ci sës mhm. xaw ma deux mille quatorze la ma deux mille quinze ndeysaan eh, maa ngi kontaan baax seen waxtaan jërëjëf di rafetlu waxtaan waxtaan am pédagogie la incha allah ñu ngi ñaan yàlla pour yàlla moom may ma bés boo xamante ne may gis ak moom incha allah. incha allah lu jot yomb. ma ngi tudd Mamadou Tanji Gora. Mamadou Tanji Gora. waaw. Mhm. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah yàlla na ko yàlla xam naa su marde boo ñëwee tey rek Castor Jëmbul daañu gisante mbaa ñu séenante. <laughs> mbokk mi mu ngi tudd Serigne Saliou. Hmm. ma nga ca kër sëñ Bachir Abdoul Khader nee na di ànd ak ñun jotaay bi. Hmm. ñu koy nuyu a baax di ndokkeel ko ñaanal tawfiix ak mhm. di ko bégee ñeenti minute moo tee une heure ne ko euh, koy bismillah asalaamaaleykum waaleykum bismillah waaw sëñ ngi sant rek. alhamdulilah alhamdulilah. bu daal bëggoon laaj. nit ki ba mu tuddee sa doom intérêt. waaw. comme ça ma tuddee Oustaz Alioune Sall sama doom. waaw. mais su ko en loolu. noo koy xamee nooy xamee ne kii tudde doomam ji nit intérêt tax mu tudde ko. ah nooy xamee loolu. ah nooy xamee ne waa ji tudde doomam nit intérêt tax mu tudde ko. non oh, léegi koy xam da koy xam daal. <laughs> d'accord jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baaw sa tey rafet lu duggam bu am solo boobu jaajëfal mbokk mi Serigne Souaïb bu Mbaye la tudd mi ngi ci géej waaye di ànd ak ñun bi nee na oustaz koo xam ne dafa tudde doomam nit intérêt mu misaal ko mel ne koo xam ne woon dana sama doom ji dama koy tudde oustaz Alioune Sall ndax bu màggee mu jël ko en charge jàngalal ma ko alxuraan muy laaj loolu ci lislaam waaw lislaam day bañ sëñ Mbàkke mm-hmm. ku ñaaw njortu loolu mm-hmm. bu kenn dugg foofu mm-hmm. <laughs> maanaam kii daa tudde doomam ji du mais intérêt tax non bul dugg foofu sëñ Mbàkke mm. nit ki nit mënta dugg cim xelam mm-hmm. ba jàpp ni lii a tax du mm-hmm. dëgg mm-hmm. ki tudde doomam Saalum Sall ba noppi jox ko mu koy jàngalit mm. tudd ko woon pour ne loolu intérêt bee tax déedéet donc buñ bu ñu duggee foofu rek dugg ci giraawaale gu ñu mënta génn léeg-léeg nit tudde doomam patron ba muy liggéeyal da koy liggéeyloo euh, ñu ne ñi jàpp ne intérêt tax déedéet wala nit tuddee nit borom xaalis ñu jàpp ne intérêt tax ba tax sax lu baree bari nit dootu ko bëgg gisuloo fi ne bu jeeg doon sëy ci bi waaw mu tas nga takk ko waaw ñu ne yàggoon na koo yëpp waaw mu nga <laughs> <laughs> loolu baaxul ñi tas kay ñu ci bari loolu tax sa yaatuñ ñi am nañu leen nopp waaye ku leen takk xam <laughs> ku leen takk ñu ne moom yàggoon na ko tax gis nga suñ bàkkee bi suñ boroom di aay ñaaw njort foofu rek tax mu doon wax. kon nag bul jàpp mukk ne ni da ko tudd ngir intérêt mm-hmm. déedéet. jàppal naa ko tudd doo am rek tabarakalla lu ko ca mm-hmm. fekk fekk ci incha allah mm-hmm. kenn ngi nii. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam bisimilah. kaddu gi de daa suufe lool yaaram mbaal ma yëkkati ko tuuti rek. waaw bisimilah bisimilah. waaw. seen son boobu noonu buy daw noonu boobu laa soxla woon. son bi nga soxla woon. waaw son bi bu mu nee nekk. wala wax ma tur bi. waaw ok. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax tey rafet lu bu am solo boobu. mbokk mi mu ngi tudd Mori Diouf ma nga ca Touba Toul nee na di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf Oustaz ñu ngi koy jaajëfal nee na son bi daw nii la soxla woon. waaw son bi daw nii de xam naa su fekkoon am na WhatsApp. Hmm. bu duggee ci suñu whatsapp rek ñu daal di koy envoyé balaa émission bee jeex. <laughs> du dëgg. ndeysaan waa ji ko def nag mi ngi tudd euh, suma juumul. Mm-hmm. ab euh, Muhammad. Mm-hmm. al Mahdi. Mm-hmm. wala al Kurdi. al li ma noonu la tudd. Euh, su fekkee am na suñu whatsapp rek. Mhm. bu duggee ñun bala ñoo nappi ñu daal koy envoyé léegi su fekkee xam naa kan la. macha allah loolu am na solo rajo yàgg naa am yu demee noonu asalaamaaleykum. <laughs> maaleykum bisimilah jàmm ngeen euh, euh, no. waaw. mën na fayal tey benn yoon. Hmm. waaw ak lu ko tere dem màkk. moom ak sama xaritu bopp Omar Pène waaye comme ñun duñu Youssou Ndour loolu mënuñ koo tontu di. ah bon d' accord. Ah, loolu ñun kat duñu doonuñu Youssou Ndour moom ngay dem ci moom ne ko lu la tee dem màkk mu tontu la <laughs> ah da ngay laaj loo xam ne buñ ko tontoo mu jariñ la jariñ ñu. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax tey rafetlu duggam boobu sax baal ma tontul naa la kat yaa waroon tontu waaw incha <laughs> allah kenn mos koo gis kii mu Maam Mor mbay mi ngi ci marché aslem nee na di ànd ak ñun jotaay bi jërëjëf ñu jaajëfal ko baax a baax euh, euh, di wax ne téléthon baa ngi noonu lu ci waaye di joxe rek na ko joxe ni mu waree kee la waree ñëpp mm-hmm. asalaamaaleykum bisimilah jërëjëf alhamdulilah alhamdulilah waaw de xam nga ni moom ni yàlla dama nopp man moom seen émission rek laay déglu yàlla xam jërëjëf. surtout yi passé nag nga xam ne dama koy décharge sama téléphone kër mu xëy ci laay nekk du ko diglu rek. Mhm. waaye dama dama dafa am benn albidaaya bu defoon 26 avril daa xaw a tuuti fi ngay waxee. ma ne albidaaya bi nga defoon 26 avril 2018. le 26 avril waaw. waaw boobu marqué na ma loolu te mu ne moo fexe ba. Mhm. waaw loolu dimbali moom bu fekkee d' accord danañ ko xool ba xam mi ngi ci machine bi walla waaw incha allah accord. Mhm. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax te rafet lu duggam bu am solo. jégalu ci son bi ni mu demee tabaarakallaahu xanaa suñu bàkkee. Mhm. dalal xelum ne kooku mu doon tudd mu Youssou nduur waaw sol na suñu dàll ba dem ca rajo ba. Mhm. wax faak aw nit mm-hmm. rawatina Daawuda Juuf mm-hmm. wax nañoo moom wax yaatu ju xóot mm-hmm. yoo xam ne ji takk nañ ko ba teg incha allah ndax kuy defar moom da ngay defar rek dëgg la lu dëgg dëgg la incha allah waaye nag eh, yem ci teg nag moom ni nga ci tontu doy na sëkk jërëjëf <laughs> jërëjëf Oustaz jërëjëf ci tontu loolu mbokk mi ñu ngi lay jaajëfal yow ci laaj bi yal na ko yàlla mottali mbokk mi ngi tudd Seydou Babou professeur euh, économie la def nan ñu ko waxee ci lycée Limaamu Laay di ànd ak bi a ne la di ñëw ñu dalal ko bu ñëwee. mi ngi naan agsi na. ok asalaamaaleykum. waaleykum waaw. waaw kay Diop. Diop mi ngi lay fay. mi ngi lay fay nuyoo. jàmm rek amiin amiin léeg-léeg gis daal euh, ndongo yi. ñu nangoo di juum de waaye sëriñ bi itam ñoom it ñu ngi ñu ngi fàttali bu baax. Hmm. keroog sama dugg bi damaa laajoon wala nag bi wan na ko. waaw indiwuma bi fay a ma a ma dellu si waat sama. Hmm. Hmm. ah allah yaay Kumba Joob ngi noonu dagg na ñu ngi koy jaajëfal. di nuyu suñu Ablaye Xuma tabarakallah mi nga bi kii mi nga tudd Mor Sey. mi ngi ci Medina ci Dakar nee na mi ngi ànd ak ñoom jotaay bi. jërëjëf sëñ Mor ñu ngi koy rafetlu nga ànd gi muy ànd ak ñoom jotaay bi di xaar keneen. xaar keneen bu ñëw ñu jël ko incha allah. waaw mbokk bi daa bëgg a bokk nee ko. ñu dalal ko génn na 88 628 98 98. waaw waaw mbokk mi. ñu dalal ko asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. Oustaz. waaw. man xam naa ne gis naa ne Fatick man maa wooteen sànq ma Skiriñ. waaw moo nay temps doon woote pour kaas ni pour sa émission bi ñu teg mooy après émission Oustaz Alioune Sall. waaw. mooy vendredi bi ñaar ba mu mën a ñaas ne nee na xaw ma. ah waaw pour euh, pour xam tuuti ñu koy teg déedéet fàttewuma la sax. Mouhamadou Boye ah. sa soppe laa de. waaw waaw Mouhamadou Boye Cap Skirring dëgg la. amoon na itam maa doon woote pour ñuy teg sa émission bi. waaw pour waa si FM Ziguinchor di synchronisé. xam naa heure boobu seen heure journal la moo tax. waa dëgg la dëgg la boobu rajo bi dee journal. <laughs> ok maa wootoon sànq noonu quoi. waaw laaj dëgg la dëgg la dëgg la. ok bu moo fàtte dëgg la dëgg la yaa doon laaj taay xeetul masjid beeg kii julli ci kanam ah. imaam waaw jërëjëf booy jërëjëf jërëjëf. ok merci. merci nuyu ñu waa Casamance yëpp ñoo ngi leen di nuyu waa marché Bokot. kii wallaahi kii mi ngi tudd Ndiaye Parfond mi ngi ci Dakar di ànd ak di ànd ak ñun jotaay bi. Mm, ndeysaan jërëjëf Ndiaye euh, Parfond. Mm-hmm. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah bisimilah. Oustaz mm, ñu ngi lay fay. Ndiaye. Ndiaye Parfond dem na ñu jéggulu ko te xaaraat ko. mbokk mi mu ngi tuddoo Dame Fall mi ngi ci unité 3 di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf suñu daam 88 628 98 98 asalaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam. bisimilah. bisimilah. salaamaaleykum. waaw. ak euh, jërëjëf ñoo ngi fi. alhamdulilah. maa ngi nuyu Oustaz bu baax. mi ngi lay fay. waaw dama bëggoon ñu wax oustaz na wax tuuti rek Seydina Limaamu mhm. waaw d'accord mhm. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax a baax dafa lépp aw turam wala jotu koo wax ñu ngi koy rafetlu dugg bi jaajëfal mbokk mi di Ndey Daba Mbay ma nga ca daaru ci bu di ànd ak ñun jotaay bi jërëjëf neen daa bëggoon nga wax ko tuuti rek ci Seydina Limaamu waa jërëjëf ci laaj bu am solo bi am mag la woon mu mbokk ci sunu magi réew yi mhm. ñëw fii ci Cap-Vert woovaa Cap-Vert fexe bañ bàyyi samp ay xërëm fexe bañ bàyyi toog ci barab di jëw mu indi leen kàddug laay laay illallaah fexe ba ñëpp di ko wax bu ñuy wal moom la ñuy wax bu ñuy dem marché moom la ñuy wax mm-hmm. mu fexe ba jël seen sant yëpp teg ko fële ña santoon ndaw ak ña santoon caw ak ñoom seen yooyu mu mm-hmm. ne ñëpp nañ sant laay mm-hmm. ndax koo ci laajati nu saw sant loo ko ca mën a xeb ciw santam mm-hmm. jërëjëf ci laajam bu am solo boobu jërëjëf ci tontu lu am solo loolu une jot na ba tey juróom benn simili waaw waaleykum salaam wa rahmatullah waaw soof soof ñoo ngi ziar bu baax ñoo yaram waaw bu baax a baax jërëjëf mi ngi lay fay ah, di leen ndokkal ci at mu bees jërëjëf jërëjëf ñaan yàlla xéewal amiin amiin wér ak wér la si dooju Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amiin yàlla nañu ko yàlla boole defal allahuma amiin benn laaj de laa bëggoon oustaz la oustaz tontu ma ci mooy euh, julli ci oto hmm. ndaamar wala ay train yu mel noonu kañ hmm. la war jullit bi sart yu daal kañ la ko jullit bi war a def d'accord jërë jëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax te rafet lu duggam bu am solo boobu. mbokk mi Fatou Diallo la tudd nekk ci Ali Imran dëkk fa la ci usine ñaari tali di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf Fatima Diallo ñu ngi koy jaajëfal baax baax. Mhm. mbokk mi nee na julli ci biir oto wala terrain wala xeet yooyu kañ la ko nit di sañ a def. jërëjëf ku fi xëye woon. Mhm. dugg terrain. Mhm. train bu jëm ak yow gaa ngi new yu jëm yow gaa ngi new muy dem ba nga yëg ne. jant bi sëñ Mbàkke mi ngi war a fenk sept heures euh, sept mhm. nga ne train ba ba gis ne sept jot na léegi kon da boo julliwut jant bi dana génn te mm. kon julli fajar gi fa suba gi faat la mm-hmm. su boobaa kon da ngay julli ca ca terrain ba mm-hmm. ni nga toogee rek ngay kàbbare jàng li ngay jàng sëgg tuuti siggi sëggaat sëgg bëgg na suufee mm-hmm. muy sujjóot bi nga si nga siggiwaat sëggaat bu suufee comme noonu mu ñaaral sujjóot bi nga nga siggiwaat mun ko koy jullee donc saa boo xamee ne waxtu wi mi ngi bëgg a jot mu ngi bëgg a jeex deuxième waxtu wi muxtaar dem na daru yaa ngi bëgg a jeex su boobaa ca nga julli ca avion ba wala ca train ba wala ca oto ba hmm. wallahu taala alam wa shukran ci laajam ba am solo boobu jërëjëf oustaz ci tontu lu am solo loolu ñu jaajëfal ko ci baax xaar keneen xatta yudi alqalb bilqurani wa alayka bilmutashabihaati fa innaha awnun li Baay Caam la tudd ma nga fële ci cité Bastos di ànd ñu jotaay bi abuha fi alquran karamatun lil hafiz al mutadabbir Mortala Jóob la tudd ma nga fële ci kër mbir ndaw di ànd ñu jotaay bi an fi sab'atin mutaassiyan bi nabiyyika al adnan Lemin Jeen la tudd ma nga fële ci Suprême tabarakallahu di ànd ñu jotaay bi wathar min al ahqad wal adgham Xadi Njaay la tudd ma nga ca Thiès moom tam di ànd ñu jotaay bi ñoom ñëpp ne nañ ne la wëgguñu رأربا إذ كل شيء 88 628 98 98 dina jënd ba teg fukki simili طيبا متطيبا Xaaji Mbàkke nee na ñaar fukki simili moo nu dese خذ السواك مع القرنفل في فمك متنظفا لحلاوة القرآن Xaaji Mbàkke kenn ngi nii nee na ñu dalal ko asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatulah bismillah waaw Sall Mbàkke ñu ngi leen di ziar bu baax jërëjëf yàlla na yàlla nangu siyaar alhamdulilah baa ñu ngi am jàmm. ñu ngi am jàmm ba alhamdulilah. alhamdulilah di nuyu Oustaz bu baax a baax jërëjëf mi ngi lay fay. alhamdulilah. macha allah. am defal si yéen rek di déglu seen émission toujours rek. jërëjëf yal nañu yàlla boole sop allahumma amiin amiin amiin amiin. alhamdulilah. di bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf am na solo trop trop jërëjëf jërëjëf jërëjëf. njëriñ daal. li ngeen bëgg daal ngeen xam ne suñu borom defal leen ko. amiin yàlla nañu ko boole defal. am defal ci yéen trop. billaahi. jërëjëf amiin amiin yàlla xam na ko. amiin. waaw jërëjëf. ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax te rafet lu dugam boobu. kii Omar Sow la tudd doom la ci Issa Sow ma nekkoon commissaire ca Mbàkke te génn àdduna Omar Sow mi ngi ànd ak ñun jataay bi. jërëjëf ñu ngi koy jaajëf def na jëf juree nag keroog ci wàllu ba ñu def téléthon ba incha allah moom mi moom Omar Sow mi te xale la. yal na ko yàlla fay. amiin wa yaakum. loolu rafet na jërëjëf. ina mm-hmm. jot na ba teg fukki simili dese nañ ñaar fukki simili. wa alayka bi cheikh al muayyad bi sanad al xaafid al thiqat al karim al daani al zaahid al wari al mudiati xaaluhu bi makarim al axlaaq wal iman الإيمان لا تنقطع عن درس شيخك مرة واحذر من الإهمال والروغان اذهب إليه ولو بحر waaw waaw kuy daw kuy bëgg a mokkal alxuraan da ngay bàyyi daw jàng soo bëggee mokkal mbokk ki daa bëgg a bokk ñu dalal ko rek asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah jàmm nga jàmm rek man la sa mbokk Silla Silla bi Ibrahima Silla Ibrahim na nga def Silla maa ngi maa ngi sant sama maam bi di ko siyaar bu baax a baax dama ñaanal waay incha allah ngay sàkk ñaan rek. jërëjëf Sylla. yal na ko yàlla may gudd fan wér gu yaram. amiin amiin yokk kàttan bi. amiin te moom su ma koy déglu rek mais comme yonente laa yaakaar jàkkaarloo. <laughs> ndeysaan est-ce que. mbokk mi ngi tudd Serigne Chouaïbou Koulibaly mu nga fële ca New York di ànd ak ñun jotaay bi. ñu ngi koy jaajëfal baax baax sëñ Ibrahima Oustaz ab soppe la. kon nag sopp nañ ko ko sopp sopp nañ yàlla ñu yàlla boole sopp. amiin yaa rabbal alamin ñu xaar keneen. كل شهر يا أولي الحسبان راجع وكرر ما حفظت بلا ملل mbokk mi daa bëgg bokk nee ko asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah oustaz waaw yaaram oustaz maa ngi ziar le yal na yàlla nangu siyaar man benn soldaar bu nekk la naan damaa war a monte si woo sax waaye son bi daal il faut mu am ko <laughs> moom ma tee nelaw ba léegi ndeysaan soldaar bu nekk kaw la laa Cheikh Abdourahmane Ly allah bisimilah waaye dama lay faral di déglu chaque jour bu ngeen kii ci wàcc su ma foogee ne sama liggéey day métti. Hmm, ndeysaan <laughs> waaye jaral na ma ko. ndeysaan. waaye tey daal moom son bi dem na wër naa ko ba sonn mais manuma ko am dama ko bëggoon am waay. da nga ko am incha allah dem ci àll bi bu ma demee dama koy bëgg di déglu ko. di ko wétli am incha allah. dama ko dama koy wétli ko foofu daal te jëm naa leen xool fu nekk seen whatsapp bi pour am ko mais manuma ko am. Hmm. incha allah da nga ko am incha allah yàlla baax li nga ko am léegi incha allah. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax tey rafet lu duggam bu am solo boobu. daal fa mbokk mi Moussa Gueye la tudd ma nga fële ca Fann di ànd ak ñun jotaay bi professeur. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal mbokk mi de moom it oustaz son bi nga teg la bëgg am nee na. waaw incha allah dina ko am euh, na ngeen fexe rek ba jokkoo sunu suñu WhatsApp. bu nu gisee message bi envoyé leen ko partagé leen ko ñëpp ngeen am ko ci kàttanu suñu incha allah jërëjëf kon mi ngi noonu da ngeen koy fexee defe noonu ko oustaz waxee ñu jaajëfal leen te xaar leen الزاهد الورع المضيئة حاله بمكارم الأخلاق والإيمان mbokk mi daal bëgg mbokk nee ko dalal ko asalaamaaleykum maaleykum salaam ah, waaw yaajuuj wa maajuuj wa hum min kulli haadabin yansiluun. waaw. waqtaraba al-wa'du al-haqqu. d'accord jërëjëf. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax tey rafet lu dugam bu am solo mbokk mi Pape Amadou Ndiaye la tudd ma ci cité Dubaay di ànd ak ñun jotaay bi mhm. am na solo Oustaz ñaari laajam wala laajam bu am solo boobu mhm. yaa jooju ma jooju eh, ñaari yoon la ñëw ci alxuraan lan la waxum inna yaa jooju yaajuuj maajuuj min kulli adabin yansiluun booba moo nekk ci suurat al anbiya ay 96 ah xataa eh, i xataa ida futixat yaajuuju wa maajuuju wa hum min kulli adabin yanziluun mhm. mm, waxtaraba al waadu lxaq fa ida hiya saaxitatu abdaru alladina kafaru yaa ba aaya ja jeex ma ci suuratu suurat al anbiya ay 96 tabaarkalla ci yooyu bokk mm-hmm. waaw xatta isaa xat ya jooju ma jooju mm-hmm. mu ne jamono ngi ñëw mm-hmm. danañu ubbi ya jooju ak ma jooju ñaari xeet lañ ñaari rab lañ kii rëy rëy kii tuut waaye nag dañoo mën a yàq mbay lool mën a yàq économie ak yu nu demee nee na buñ leen ubbee nag min kulli xadabin yansilun fu ne nga leen di seen mm. ñuy ram-ram yi nee na su boobaa waqtarabal waadul xaq rendiwu ba nga xam ne mooy rendiwu bu dëkk ba daal bu dëggu ba jege si fa isa ya saaxisum absaaru la si na kafaru mboolem ñi wedd woon nag dañuy xulli seen bëj ndax tiit waaw nga yuux yaa way la naa kunna fii xafla min hada bal kunna zalimin tabarkalla sunu borom teglan ci ne leen innakum ma taabuduun innakum min duuni hasabu jahannam antum laha waaridun wa shukran ci laajam ba am solo boobu jërëjëf ci tontu lu am solo loolu fukki minute juróom moo tee ñu yëkkati jotaay bi ñu wéy di leen xaar jërëjëf mbokk mi الثقة الكريم الداني الزاهد الورع المضيئة حاله بمكارم الأخلاق والإيمان لا تنقطع عن درس شيخك مرة واحذر من الإهمال والروغان اذهب إليه ولو بحفظك آية فالوصل يروي ظلة الظمآن عقب الصلاة احفظ ثلاثة أسطر مع كل kulli fardin la takun bilwaani majmuuha waaw bu yàggee nga mokkal de bu fekkee saa bu sëlmu la mokkal ñetti bind léegi tey nga mokkal alxuraan min rayaani majmuuha fi sittatin ya saaxibi tisuuna satran wuddixat bi bayaani fi saabici alayaam mbokk mi neen dafa bëgg bokk ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah yaaram maa leen di ziare bu baax. ñu ngi lay fay yal na yàlla nangu ziare bu baax jërëjëf jërëjëf. waaw suñu dàkk tey dama dégg sa baat ci benn télé. RTS waaw. waaw dama dem bay dem wax musuma laa gis ne moo déggee sa baat dama koy xam ne ngir cofeel bu ma am ci yow yéen ñëpp. ñuy def émission si DFM àjjuma yéen ñëpp boobu daf mooy neex trop maa ngi leen di ñaanal yàlla. amiin. Euh, suñu borom yàggal leen suñu kanam barke alxuraan. amiin yaa rabbal aalamiin. cofeel googu laa am ci yéen ñëpp nag. ngir lislaam rek ngir yàlla ak lislaam musuma laa gis musuma lu du damay dégg sa kàddu rek mais may taal sama télé bi ma déggee sa kàddu damaa taxaw mais émission bi nag dama xawoon euh, xaaruma la ci woon ma bëggoon xam daal hmm. euh, lu tax daal lu tax xaaruma ci woon non maanaam émission bi dama gis ne ma fa wax dëgg yàlla euh, xaaru xaaru xaaru bi ma ci déggee sa baat dama doon nettable ndax yow loolu du yow comme ni ma la musul gis nag ma ne su ma amee occasion dinaa la laaj ba xam ndax parce que émission bi dafa xaw a kii ci man daal kan ma yaakaaroon ne maanaam xaw ma nan laa la ko mën a waxee daal waaw ni nga ko gisee rek ni nga ko yëgee rek nga koy waxee waaw ni <laughs> loolu loolu koy amul xam nga euh, xam nga ni daal boo ko soppee dañu am doo xam ne daal doo ko maa ngi maa ngi jégalu daal di la ñaanal yàlla jàmm di ñaanal ñëpp jàmm jërëjëf amin yàlla na yàlla nangu ñaan yi lu neex a rek la kon <laughs> jërëjëf Oustaz ñu ngi koy jaajëfal bu ah, baax da ko da ko da ko bett ndax euh, xam nga yow comme professionnel nga benn ñaaral ba fi ngay fël dafay kii xam na lu la ko bett. Hmm. mu xool mu mu yëg ne sëñ mooy wax mu xool muy moom. Hmm. ah foofu lay foofu lay wax foofu lay wax d'accord d'accord damaa yaakaar ne sax daf caa gis lu jaaduwut loo xamante ne moom la moom la ñu dindi ko ci ma bëgg mu wax ko ñu dindi déedéet xam naa ah, kon dana ko wax moo tax kon nag alhamdulilah am na ko nekk nii jërëjëf asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Oustaz Mbacke waaw yaaram ci benn soppe la Mouhamed Mara Saint-Louis. Mara na nga def naka waa saint waaye yéen ci jàmm bu baax. bisimilah Mouhamed. Mouhamed Mara. Mouhamed génn na ñu ngi koy jaajëfal baax te di ko xaaraat. kii sunu doom ji jigéen la mi ngi tudd Astou Mbène Thioub ma nga fële ca TFM di ànd ak ñun jotaay bi. Astou Mbène ñu ngi koy nuyu baax a baax Thioub <laughs> ndeysaan une heure jànn ba fukki simili ak juróom-ñett ñu wéy di leen xaar. واستغن بالقرآن عن دنيا البشر ثم استعن بالخالق الرحمن نزل القرآن لتعملوا قومي به لم يأت للزينات والأحزان